ku ormaalu dëkk bi ormaalu sëriñ bi kon nag ormay dëkk bi nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ci waxtu mu mën a doon rawatina fan yii sàmm war may dëkk bi dara jiituwu ca ndaw ñi ñoom ñooy yaakaari ndax ñoom ñooy yaakaari ëllëg yi. te it lu ñu mën a yëngutu. lu ñu mën a yëngutu. yëngutu ci sëriñ bi moo gën ci sëriñ bi moo ko gën ci ñoom. kon ñoom ñoo war a def seen bopp sax. kon ñoom ñoo war a def seen bopp sax. ñooñu ñoo war a ñoo war a sàmm ñoom ñoo war a ndaw yi ñoo war a sàmm dëkk bi. lu fi sëñ bi bëggut. lu ñu fi gis. lu ñu fi gis. war nañ caa def seen yitte. te boole koog yar ak teggin ñoom ndaw ñi ñoo war a sàmm dëkk bi ci lépp mën na maa yem foofu Cheikh Bass eggale li ci des li ma wax lépp jox nañ ko ndigal mu wax ko nañ góor gi góorgóorlu ci cant gi rek góorgóorlu ci sàmm orma ji loolu rek la alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala alhaadi al amin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin ci